salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a tàmm di suivre euh, votre chaîne Dialaw euh, TV ñu ngi leen di nuyu euh, di leen jaajëfal di am mbégte ak ak contentement si si abonnement yi ndax mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax baax a baax tey jii nag dañoo génne pour def benn micro trottoir jéem a laaj ak jéem a wax ak population bi ñu wax ñu seen lan mooy si seen xalaat si si élection yi ñu jubsee ak ak candidat yi nga xam ne ni booba tey ñu ngi ñu ngi gën yokk lu siy xalaatam si candidat yu bëri. waaw salaamaaleykum jalau TV eh, am nañ mbégte mu rëy rëy di kontaan ci bu baax a baax eh, di wax ne daal li xew Dialaw kenn rafetlu ko wax dëgg yàlla eh, ndax Dialaw ñun ñëpp ñoo ko bokk ginnaaw bi ñu ko bokkee itam bon rafetoon na ñu bokk ay xalaat bokk ay gis-gis ndax dëkk bi li fi nekk ku ne xam na ka bon nag mënoon naa ñàkk ñuy def. Eh, ay parti yu bari ku ne am foo jaar loolu ñu ñëpp ñu ngi koy ñaawlu di ko ñaawlu bu baax a baax ndax li fi nekk si ay kandidaa bu ñu booloo woon def benn coalition bon lu ñu bëgg dina gën a yomb mais amaana xaajaloo bi encore eh, a dëgg yàlla day nekkul lu gën dafa tolloog nit ki nag mënuloo ko forcer pour ngeen ànd mais am na kandidaa yoo xamante ni si biir candidat yi eh, jogoon nañ sol seen dàll sax seeti candidat yenn yi pour mën a ànd ak ñoom pour defar jalaaw ndax defar jalaaw moo ñu tax a jokk ndax jàpp nañ ne jalaaw li koy defar ñun ñëpp d'accord nañ ci àndandoo doon benn moo koy defar ñu rafet njort na nag àndandoo bu doon benn moo koy defar bu nag waruñu mën a xëccoo si affaire yu jiit kan mooy jiite ndax comme defar jalaaw kese moo ñu tax a jokk ku ne na jël intérêt def si poosam ñu jël intérêt jalaaw teg kanam bon rafet naa njort ne loolu warul woon mën a nekk lu ñuy. lu yombul lu war a si ñun wax dëgg yàlla. waaw ah, merci beaucoup mais est-ce que yaakaar nga ne candidat ñoom dinañ dinañ dinañ euh, ñoom dinañ rafetlu am ku ñëw jiite leen quoi ak ñoom euh, lépp bépp investissement bu ñu bi xam ne ni def nañ ko bi si si début élection yi est que yaakaar na ne ñoom dinañ nangu kenn ñëw dinañ jiite. waaw parce que ñun ñii ñun ma mouvement bi ànd ak Amath Diagne woote nañ benn journée diagnostic c'est Paolo Toubab Dialaw invité parti yi fu nekk yëpp. xamal leen ne dëkk bi li ko mën a changé mooy ñu def benn àndandoo def benn coalition rek pour jël li fi nekk ndax ku ne xam na ne li fi nekk pour jëlee ko fi àndandoo bi mooy gën a gaaw pour jëlee ko fi jour boobu jàppoon nañ ñi ña fa nekkoon ñëpp doon doon ay parti wala war a nekk ay candidats si élection maire yi loolu kese doyoon na pour ñoom ñu bokk loolu bokk ci toog xalaat jour boobu ñu bari ñi nga xam ne ku si mel ni ma soogi ak ñeneen parti yëpp kor lañu lañ la ñu jàpp ne loolu moo moo mën a nekk mais yeneen parti yi itam eh, sunu leader en tant que Ameth dem na foofu dem na fa dem na fa seeti len waxtaan ak ñoom pour ñu àndandoo doon benn ñëw itam bon d' accord ñu si ànd parce que lu tax d' accord ñu si affaire njiit la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy teg seen kanam amee dem na beneen benn jour nañ jël benn mbax na def candidat yi fi nekk yëpp ku ñu bind sa tur def ko ci benn mbax na ku jëkk a génn ñu xam ne kooku la yàlla tànn kooku mooy kooku loolu mooy chance am mais loolu yëpp boo gisee mooy bëgg jalaaw rek ak bëgg jalaaw jalaaw li ko fi li li fi nekk jóge fi mais le problème mooy li nga wax léegi rek parce que man jàpp naa ne ba tey jii intérêt jalaaw wallahi lazim yenn candidat yi intérêt jalaaw nekkul seen kanam seen intérêt bopp lañu gis ne loolu moo fa nekk ndax pour ñu ànd ji euh, def benn say ji la fi nekk comme ànd na moo ma nekk moo ma tax loolu am ah ma ne rafet naa njort na loolu bu amoon mooy gën ah, mooy gën moom mais yaakaaroon ne loolu noonu ñi ko mën euh, régler du keneen du ñeneen ñu dul euh, population bi population waaw parce que population yi ñoom ñi nga ñoom ñoom parce que affaire bi nekkul candidat bi si électeur bi la nekk man jàpp naa ne ñi fi nekk ñëpp di ay nit dëkk yéen waaye yéen xamante nañ bu baax ñi fi nekk ay candidat li ko dalee nduxoro ba tubaab jalaaw ku ne xam na kii mooy kan ku ne xam nga ko loo mën ak loo tële mosañoon nag doomu jalaaw yu fi nekk li ko dalee ki gën a ndaw wala ki gën a mag wala ñi war a wate yëpp ku si nekk na xippi sa xool kan ngay tànn si sa meeru ëllëg ndax ku ne xam nañu fi nekk ne xam nga loo mën ak loo mënul ñoo ñu ngi fi nekk ay boobu léegi mais ñoom jariñu yeen dara ñu war a xàmmee ñaar nag kii jariñoo yeen ak ki yeen di jariñ ñu bari nak ñu ngi fi si yeen fii wax dëgg yàlla ñu ne liñ gis si ñoom surtout man mi ñoom dañ jóg pour jariñoo yeen mais amalu ñu yeen njariñ wax dëgg yàlla et loolu nak du mën ki kii du mën a kële mais ku ne war na mën xam ne loolu mu ngi fi te ñun xam nañ loolu ñu ngi nag jàpp suñuy carte et ànd ak suñu fulla et bu ëllëgee bu ñu demee si mañ gàcce gi xam nañ bu baax nan la ñuy def waaw loolu daal mooy li nga xamante ni daal eh, jàpp naa ne loolu lañ war a def waaw ndax yéen li koy jëmee kanam daal ñun waa yéen doomu yéen ñooy changé jalaaw. Ah, d'accord merci jërëjëf. élection yi jub si na te gis nañ ne candidat yi inscrits waaw bëri nañ de est que yaakaar nañu candidat yi ni mu bëree nii dina dina arrangé ñi nga xam ne nii ñoo bëgg yéen changé. waaw li nga wax dëgg la parce que. Euh, am na loo xamante ne tey yu ci bëri foog ñuy jàppalante ci nit yi parce que ñun ñëpp buñ boolee dañuy ànd comme li waa ji wax rek ñu xeex boole génn fi ki ki fi nekk parce que bu kenn di génn rek wala ñu am mbooloo yoo xamante ne ñoom mënuñoo ànd yu ci bëri ñii di xaaj ñii di falfale duñ mën a génn kilifa gi parce ñu bëri ki fi nekk lañ bëgg fal parce que mool yaa ngi kaas parce que am na ñoo xamante ne ñu ko bëgg pour def ko pour si dëkk bi man sama place mécanisme mooy laay liggéeyal parce que ñu ci bëri ñu bu ñu amul mool yi duñ am parce que tey ji mool yi yu ci bëri mécaniciens yi lañ am parce que yu ci bëri tey machine paane foog ñu dem ba ci mécaniciens yi ñu defar mooy li kilifa gi wax rek parce que tey jii am na loo xamante ne boo koy def foog ñu groupe ànd génn ki fi nekk parce que ki fi nekk mu bëgg mu ngi bëgg pour ñu defar réew mi mais booba léegi ni gisaguñ loo xamante ne def na ko ci réew mi te amagul loo xamante ne waa dëkk bi kontaan nañ ci moom parce que stade bàyyi ni booba léegi gisaguñu loo xamante ne rafet na ñii dañuy ñëw di seetaan mat si taxaw di taxaw doo am loo xamante ne li nga bëgg moo tax ins bi fintool nii am na loo xamante ne tey fa nga continuer ko ci réew mi parce que réew mi mënagul avancer loo xamante ne ñun gis nañ ko ci dëkk bi moo tax góor gi siis mi ñuy wax ci dëkk bi man gisaguma ci loo xamante ne man def na ko ci dëkk bi man moo zaal gisaguma ko fi mais lu ci bëri ñun waa dëkk bi foog ñu booloo ànd xeex kii di euh, Ameth Dianjir ñu jàppale ko parce que ñun ñëpp benn lañ Fonyu ñu and ñun ñëpp bolo bolé boo ci dëgg bi dem liggéey yi kon dal suma ma bu baax yow dal li la doon gënal moy euh, yenen candidat yi ñëw aussi côté Ahmed Diagne jëm jëlé ki nga xamné ni moy euh, moy ko gis waaw man mom sama gis-gis lool la parce que gisoguma fi lo xamantene goor góor ci taxaw na ci dëgg bi man moom wax rek li am mais mo gisoguma ko fi lo xamantene taxaw na ko fi bi parce que moli euh ñu jara jappalé lañu parce que moo li ñoo ñu ñoom ñuy toog di jooy fu ñu aj seen gaal parce que dañuy ñëw fi ban di tax di aj seen gaal yi te loolu moom bokk si région boo xamante ne muy sukkandi ab dëkk parce que yow yaa ngi aj sa gaal nga defar sa gaal valeur nangam cinq 500 yu teg wala 600 yu teg tey nga aj ko wala mu dem géej nga am pertement te yu ci bëri ci dëkk bi la mais am na loo xamante ne foog ngay jàppale ko euh, ci waa dëkk bi tam ñun ñi mécaniciens yi foog ñu am ci priorité boo xamante ne ñun ñuy jàpp fa am loo xamante ne foog ñu booloo ko ñu xeex ko mu génn ci dëkk bi. léegi yow euh, lan moo la poussé ba nga ne euh, yeneen parti nañ rangé aussi côté Ahmed Diagne Dir euh, pour jéem fi jële ki nga xam ne ni mooy candidat sortant bi lan moo la poussé ba nga wax loolu. waaw dafa am loo xamante ne boo koy wax da nga koy seet xoolaat ko parce que gisuma fi loo xamante ne góor gi si defar na ko. parce que stade bi ñaata at lañ commencé wax wah koy défar est-ce que def na fi lo xamantene luy soukandi dëkk bi la man gisuma ko fi mbokk parce que depuis bi mu commencé taw na muy défar stade bi parce que dafa jël dafa yàgg té gisuma fi lo xamantene mom taxaw na fi na mu ngay défar mais est-ce na ay travaux fini pour euh, di far ay tribune waaw lolo. dafa am loo xamante ne cëram la te taxawaayam la te qualité am la moom mu def ko mais xam nga tey Gorgui Ciss moom warul xaar ñu koy wax moom dafa war a xam loo xamante ne tey dëkk bi lii la si dëkk bi moom moo ko war a def parce que président boo jotee ne yow président nga defal li la war ñun loolu lañ xam mais tey jii ñun gis ñu si loo xamante ne moom def na ko si dëkk bi mais moo tax ñu bëri. buñ mënee pour mu génn fi man moo sama gis-gis nañ xeex pour jéem a Ameth Dianjir taxaw ci dëkk bi parce que man sama gis-gis moom loolu laa gis góor gi góor gi si génn waaw. waaw ah, merci beaucoup merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. salaamaaleykum. maaleykum salaam. jërëjëf noo gisee euh, candidat yi nga xam ne nii nañ trop euh, fii si yéen. waaw candidat yi moom ñu ngi fi bëri nañ fi trop candidat yi moom. ñu ngi fi quoi. est que yaakaar na ne euh, dina nekk loo xamante ne nii gënal na ñi nga xam ne ni ñoo bëgg changement. waaw instant bi moom waaw am na yoo xamante ne li li li tax sa changement di am ñu ñu jëm fi jële kenn rek te mooy góor parce que politique bu ñuy awee fii ñu aw fii ah, liñ liñ bëgg duñ ko am man su man su ma sañoon su ma sañoon mooy ñu jël kenn ni ki nga yaar sa xol quoi di tànn koo fal mais man peut man moom man Jibi Ndiaye quoi man moom fal naa ndiir. waaw yow fal nga ndéeg sama carte ba soo yàlla moom moom laa koy sànnil léegi lan moo tax nga ne moom ngay sànni waaw parce que euh, li may wax ne fu wér laa ko teg te dama ko xaw ma ko sax mais dama koy dégg nii rek mais mook sama papa ay xar lañu quoi waaw parce que sama papa nga dem réunion ah, maanaam daal bu ma dégloo li ngay wax daal si côté xaritaak ndoo ak sa papa daal nga ko bëgg a batale waaw parce que du loolu sax parce que boo gisee mu wax lii parce que dafa xam mool xam li mool di daj dëgg la am nay jamono sa gars yi naan ndiir gesu leen wala ndiir tamit yëgu leen mais xalaat naa bii moom bu ko bu ko gars yi ak ni ko gars yi taxawoo ni ko gars yi taxawoo nii bu si génne xam naa li mooy leçon si moom waaw te bëgg naa aussi tamit ndiir maa ngi koy ñaan nag man jibril yum ah, bëccëg buñ ko falee na jéem a kër yi si tefes gi fii mu jëlee ko fi quoi parce que ñun instant bi amuñu fu ñu gaaree su suñu matériel suñu gaal yaa ngi yaaxu aussi tamit wala su bu jëlee xam ku nekké do do mëna nelaw te kër yi rek ñoñu ko xañ xam nga essence bi da ngay dem ba téru jaamu difa téer wala soir ko di dem ay nditax ay ay gaay yi day campagne mbaaw sa bu géej naxare ya, pour raw pour jëm rawalé sen sen sen seen matériel xam nga lolu doxul mais buñ sañoon mom biñ dem fan fi lañuy tok toog waaw mi ngi est ce que yakkan nga ne gon yow dal yakkan nga ne bu ndi faloo daal changement day am ala kuli ali. ah man de xalaat naa ne buñ ko falee ak gars yi gars yi niñ ko téyelee nii ah grand yi moom ku nekk a ngi wax ku nekk a ngi coow ñu ngi réunion nag mais réunion yi man yàlla def dama goma réunion parce que amaguma temps boobu mais ñu dem réunion di ñëw maa ngi dégg seen wax am naa si yaakaar daal ndiir buñ ko falee dinañ gis changement si dëkk bi. mais politiciens yi dañoo doy waar de nag tey ñoom li ñu lay woon euh, avant avant avant élection yi ak li ñu lay woon après élection yi mën na nekk mën na nekk mën na amaana du nekk benn quoi. waaw xam nga loolu lu waay def rek sa bopp la àddina lu waay def sa bopp la waaw parce que nit euh, ni ni ni nit bu ñëwee mu yaakaar si yow yàlla lañu yaakaar mais instant bi ñu toll kii politique si moom yaakaar mais ah, xam nga tas yaakaar baaxul te doomu aadama boo tasee yaakaar di nga ko gis waaw man moom Ndir moom am naa yéene pour takk pour takk si yéen fii. jërëjëf monsieur ñu ngi lay jaajëfal. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar. Mami Ndoye Farimata Ndoye waaw waaw ah candidat bare yi de bëggoonu fee yokk ab coonaati rek ndax kenn ka si nekk di fa dëkk bi taxulaa jog ñoom ñëpp nag kenn ka si nekk sa intérêt yi boppa doo nga la tax a jog parce que ba déggoo ne day décider rek pour defar dëkk bi dinaña doo booloo jéem a doon benn waaye fi mu nekk nii gisuñu kenn ka fi te ne ginnaaw ki fi nekk intérêt dëkk bi waaw ba dee génnee defar dëkk bee ñu tax a jóg noonu la war a mën a demee a ah, ba yombulee waaye nun defe na ma ne jamono bi nekk léegi kenn dofatu ni ko nekk war naa la mën a xam li la arrangé ak li la arrangé wu yàlla ba booloo am si ñoom sax waaw parce que ñoom ñëpp liwul nekkul laa xamante ne intérêt dëkk bi ñoom ñëpp kenn ka si nekk sa bopp laa fi nekkal ndax ñoom ñëpp kenn ka si nekk am na doole jaa xamante ne war naa see mën na dimbali dëkk bi te taxul u dimbali ko si kenn ka si nekk lu yor yaa ngi si sa bopp bonte nag doo dem ba bëgg dara u doog a ñëw u ne di dëkk tax a jóg ah, citoyen kay kon intérêt dëkk bi tax na ah ñi kay intérêt dëkk bi tax na wala loo ña wane ka man woli fay woli fay waa élection ah candidat yu bëri de moom ma ne moom ngi ñaanal Baye Mass rek jël ko rek Baye Mass Mbeng na ko jël yàlla na ko jël Baye Mass li mu fi def gisaguma benn candidat fii bu ko fi def waaw Baye Mass maa ngi koy ñaan yàlla si kàttanu yàlla yàlla na ko jël Baye Mass Mbengue waaw xaw ma nag xamuma waaye fi def gisuma ben candidat bu ko fi def Mass gisuma musuma gis xamuma waaye man maa si ma xol maa ko ko yéene Baye Mass yàlla na ko jël ba ko nañu jëlal ñaari kër yi ñu ko fi jëlal waaw ñun suñuy gaal am fa ñu nekk nu am la ñu liggéey Baye Mass ba ko jëlee amuñu ko koy ñaanal mu jëlal ñu fi ñaari kër yi ndax amuñu fi benn njariñ gis naa nu gaal yi ah te ñun waa géej mu ñëw dimbali ñu si projet ñu liggéey loolu daal laay ñaanal Baye Mass Mbengue waaw mais élection yi li mu si mën wax tuuti la quoi vraiment ñun dañu xaw a doyal si ñi fi nekk parce que 18 ans de pouvoir vraiment doy na ab dëkk nag balaa ne mu am changement même yow mi jàkkaarloo ma di ma intéressé yow boo toogoon sax ñu am lu ñu neex ñu peut-être ñu xam ne yow mi am nga loo fi liggéey wax dëgg yàlla maa sama goro la sama goro la man kenn mosu kenn gën moo gën a bëgg góor gi siis 18 ans de pouvoir yi mu def yëpp moom rek laa mos a gëm mosuma kenn ko dul moom dama daan jaral fi may toog di liggéey nii si pantre bi dama fi waaye daanee ngir moom ab dëkk nag balaa ne foog mu am changement loolu mooy doxalab dëkk doo ne kenn la ma fee rek ba ilaa yow mi dun loolu doxul lëb dëkk ab dëkk man di ma gëm daal dañ ko war a dañ war a changé si dëkk parce que doyal nañu vraiment doyal nañu quoi non c'est-à-dire que candidat yu bëri man li ma si mën wax moola la candidat yu bëri yëpp garaawul nañu ñëw rek kii yàlla jox chance ak muy moom quoi waaye vraiment kii fi toog nii moom wax dëgg yàlla doon si doyal quoi nañu waxante dëgg rek du man rek moo leen doyal nañu élèves yi dool nañ vraiment nañ seet keneen ku ñu fa teg waxuma la maa sama goro nañ ko fa teg waaye nañ seet keneen koo xam ne mën nañ ko fa teg moo amul nañ jëriñ ëllëg quoi si dëkk bi mais yéen réew lu réew boo xamante ne mën xaa defar yéen yóbbu naa defar yéen village bu ndaw la yéen li ñu gën a gëm wala jeunesse bi defaral terrain bi nga ñëw si dëkk bi defar lampe yéen village bu ndaw la yóbbu naa defar non bien sûr dinañ yomb ñun daal nañ gëm carte yi bu ma waaye nag ku nekk nga gëm sa bopp carte yi nañ ko jox bàyyi maas ngir yàlla maa man gis naa ne man bu ñu ko joxee dëkk bi dina ko liggéey man gëm naa loolu man goram laa man gëm naa bu ñu ko joxee dëkk bi suba billaahi dinañu liggéeyal ki fi nekk nag wax dëgg yàlla ñu abal ñu abal ñu quoi ñu seet keneen ku ñu fi teg moo ñu gënal quoi dégg euh, c'est-à-dire que man gëm ne parti yi ñuy jéem a xëccoo yëpp parti yooyu moom waxuma duñ fi am dara de waaye man góoma ñu am fi dara parce que tamit wax dëgg yàlla ah di ma gis boog parti yi fi nekk doy ma man daal ma fi doy moo ma fi doy à part ça keneen daal marché doy ma fi nee naa la man yàgg naa sànni marché kii góor gi siis 18 ans de pouvoir yi mu defee moom daa ma sa sànni carte la xam nag du marché moo nekk sama góor moo tax ma di ko faral waaye man ma doy da bëgg dëkk bi la mu bëgg nu changé ab dëkk da am changement ma loolu laa gëm yaa ngi dégg en plus tamit wax dëgg yàlla képp koo xamante ne yaa ngi fi toog bu subaa nga jëm ñoo évacuer dundunu kër yi nekk si yéen fii parce que ñun amatuñu teeru bu géej gi génnee dañuy am problème di tax la ñuy té loolu c'est pas normal du yoon ya ngi dégg. ma ngi dëkk yeeni kaw kër gi ma dëkk fa la ëmma jaañ ndiir yaroo nuy dooma nga fa nuy sëta ngi fi gune dañu jànga ba gëna nu kanu jàppale jàppale nuy doom ndax kanu jàppale nuy doom nu la jàppale légui nak dañu bëgg and ak Amat ndax mom mo and ak gune ndaw yi té gune yi yor mo tax bëgg jàppale Amat pour jamana su pahu waaw ñoom ñoom ama Diagne lañu fekk ci kanam ñoom war nañu mëna baye ama Amath mu dem ñoom ñu nekk ci ginaaw ñu and ak mom liggéey dekk bi comme liggéey dekk bi rek lañu bëgg ñu ñu top ci ginaam pour ñu liggéey dekk bi bu fekke lool rek mo leen ñor pour jalaaw ñu and ak ama Diagne pour ñu liggéey jalaaw man lool nyom ñor ndax suñu doom a fi nekk te ëlëk ñoy suñu yaakar waaw lool la amon luma ma wax. kërëm asama kër ñoo jaakarlo te gis na ma lu baax li muy def si dekk bi. sa koor daw ñuy jox suukuri koor koorite mu jox nu pompiteer ak soble ak i ganaar nu togg suñuy añ ba mu baax bon nag ndiir noo ngi ñaanal yàlla ndam liw la xëcc xoon yi yàlla na la ko yàlla may ñi la fekk se nag dañu bëgg ñu topp sa ginnaaw ñu jële ki fi nekk parce que nun sonn nanu yéen suñuy maam yii deewoon boo ña yoon boo ña yëkkatee ña yoon wi ndax yeen amul benn changement yaa fa nekkoon rek moo fi nekk bon nag ñoo ngee sant Ama Diagne Dir yal na yàlla yal na ko yàlla may ndam mu àndax gune ya ndaw yi bëgg na gune ya ndaw yi géej gaa ngi nuy doom a ngi bañ a demee tey ba subaa duñu gis ñay mbaal te nun kanu dimbali si géej gi rek lanu bëgg te Ama Diagne Dir mool la ab lébu la xam na yoonu yoonu ndox si géej gi laa liggéeyee noonu suñuy doom si géej gi la ñaa liggéeyee nuy mbaali doom yëpp a ngi des si géej gi amuñu kenn kanu si jàppale nag noo ngi la yuuxu subaa ngoon gu dee nuy doom talatuñaa lekk talatuñaa nelaw ndex mbaal yi si géej fele fele yaa ngi këttamba yaaxa sa gaal eh, eh, yaaxa mbaal yi wasalaam salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp bi sant ñëpp man la xaadi coom doomi bàyyi coom teg si góor gi siis la ma bàyyi man nag dama nekk nit kaa xam ne benn ab la ma benn yoon la maa tooy man fi ma ngot fi la ma ngot ba tey ela ñaanal ma bàyyi góor gi siis idi ka gërëm ela ñaanal tonton ab ma la ñaanal nag bàyyi góor gi siis ala ma bàyyi sama xol ma di ka ñaanal wata bii la ñëw ñi naa ngi naa dafee jóg dafee waaye man day boog man da ah may doom man moom moom na damaa wateel ba ma kaa watel mu jóge fi sax te yàlla ba ko fi yàlla jële ay wax nag moom fi la nu ka feeka fi nu kaa bàyyi man daal li maa xam wax daal ba di ka wax daal ma bàyyi sa kanam ma góor gi siis sa kanam rek wasalam man Youssou Imla tuddo da ko kaw wa election yi waaw xana di commencer par ñaan si mu nek si jamm salam rek waaw lol dal lo ñaan yalla na am si jamm jeex si jamm assalam. waaw te ki gën ci dëkk bi yalla dafa ñu mu gañ waaw man day personnellement man ni ma koy waxe toujours bu fekke ñom euh, dëkk bi kese mo leen ñor wala développement dëkk bi kese mo leen ñor dama yaakaar ne warul warul mën a am problème bu fekkee nag ñoom seen intérêt personnel moo leen tax a jóg <laughs> laa ñoom dama naan ñoom ñëpp yem mais man je vois que bu fekkee ne dëkk bi moo leen ñor war nañoo mën a def benn candidature au moins mu nekk benn opposant ndax li fi nekk franchement ñëpp xam nañ ne doxul doxul jegeñul bay dox pour ñu dindi ko fi nag man je vois que ñëpp dañu war a booloo pour dindi ki dindi li fi nekk waaw intérêt dëkk bi loolu kese mooy la la chose leneen amu fi bu fekkee nag ñoom seen intérêt personnel moo leen tax a jog laa ma xam ne ñoom ñëpp ñoo yem mais bu fekkee daal intérêt jalaaw moo leen ñor war nañ mën a booloo mu nekk candidat unique benn candidat mu opposé wu ak ki fi nekk voilà. waa xam nga loolu moom leader yi ñoom ñoo ñoo ñoo xam lool waaw ñoom ñoo xam kan moo ëpp masse wala kan moo ëpp doole wala leneen mais kii ëpp doole daal defe naa bu ñuy de bu ñuy rangé wu ñëpp dañu war a rangé wu si moom. te mu nekk aussi koo xam ne moo gën si moo gën si nit ñi ah man ah xaw ma dina yomb xaw ma du yomb de mais man daal dama ne loolu mooy li gën waaw mais ñoom leader politique yi nag ñoom ñu ngi noonu <laughs> ku nekk day jël intérêt intérêt rek lay gis mais daal lii gën si nit ñi mooy ñu bokk benn ñu rangé wu ci kenn ñu def benn coalition pour jële fi li fi nekk loolu kese moo fi nekk kanta kan moo ëpp doole kan moo ëppul doole def naa loolu ñoom ñoom ñoo koy gën a maîtriser daal ok merci beaucoup. waaw yi waaw jub su na moom loolu dëgg la. Euh, ah candidat moom man moom sama gis sama gis-gis mooy bu fekkee ne timit pour defar moo leen tax a jóg daal pour ñu doon benn daal mooy gën quoi pour dëkk bi waaw. ah, ah man daal loolaa gis loolu mooy gën. Euh, ah. man daal ki ma gën a gis damay jaañ bu ñëwee dem si Baye Mass baax na Baye Mass suñu fekk mën a ñëw si amee jaañ tamit baax na ñoom daal nañu fexe doon benn booloo rek. ñoom daal daanaka ñor. waaw. parce que nit moom booy defar dëkk intérêt personnel la ngay tegee ne di fa dëkk bi tax la jóg bu fekkee loolu moo tax a jóg moom dëkk bi dina defaru waaw. maa ngi kontaan bu baax. dañu jeexal. amatuñu leneen lu ñuy def. waaw lu ñu conseillé xam ne dëkk bi lii waroon na fi am. du pour mag ñi mais pour gune yi ñëw seen i doom ak yéen sëñ bi yéen xam ne ay gune ndaw ngeen mais yu bëree gi manqué biir dëkk bi oto war na fa bëri oto yoo xam ne yóbbu école yi xale école yi yéen yóbbu dama fi ñëw bon ñaare dëkk bi war nañoo xam mbedd central yu mag yi xam ne ñoo dugg si biir dëkk bi ñu defar leen ñu defar leen defar boo xam ne bu baax lay doon mais mbedd yi dara baaxu ci bii jaar nii bi bi jaar nii bi bi jaar nii yëpp benn baaxul waaw yéen kaw bu fekkoon tey naka yàlla traité dara defar oto pour duggee ci seen léegi lañ fi doon sëkk suuf léegi yooyu yëpp tàngoor gi si gën a tëgër kay parce que ñi ko fi jële ñi ko jële ah waxuma ne gaaw na de di gaaw ah waaye nag di dina xaw a yëg parce que bu ñu àndulee nekk benn du mën a nekk bu fekkoon ne ñaari candidat la voilà góor gi si sa kaneen wala bon waaye lu mat ñeenti kan sax léegi naa leen mais dëgg dëgg ku ci war a jóg fekki moromam waaw ah ñoom ñëpp ay xale la ñu de ñi fi nekk ñi ma dégg ñëpp de man gisuma si kenn ku ci ñëw ci man waaye ñi ma fi daal ñu nekk fi ñëpp ay xale lañu li ci nag ay gune lañu gune la bu fekkee ne am na diisoo boo xam ne bu baax la ah, man ngeen ka tànn def ko man ngeen ka tànn jël ko moom boo amee diisoo bu rafet ci dëkk bi man ngeen ka tànn def parce que fi datul deuk bu ndaw deuk bu mag lay doon war ngeen ko xam li dalee Ndakaaroo Kees tege Tëngéej fu nek li fi duwelé li fi dik di fi nekk ngeen góorgóorlu ci yeen xalé yeen ci des sax wa élection yi da ñëw na mom mom waaw candidat yi lima ci gis yeen mom tolu fi no xamanteni candidat yi war na mëna bëré ni té candidat yi bëri nañ ku nekk yaa xëc ci sa côté mais nak ki fi nek day mbeur mo xamanteni bojo bojo yëngalu do ay yu ñàkk fay de ñoko yëngal kuko mëna kuko ñiko fi mëna jëlé mom mbolo rek lay doon te olof dane mbolo moy doolé mais bu dut mbolo mom li ma gis ñuy def ni yëngalut waa wa lool moy sama xalaat hmm, voilà parce que am rew mom buy dox jeunesse bi moo koy doxal te pour man ki nga xamante mo mëna yor dëkk bi mu dox dafa wara mëna mën ak jeunesse bi xam li jeunesse bi bëgg xam dugg-dugg jeunesse bi mais tay man ñima gis ñu samp seen dënd ñëpp bëgg jër dëkk bi gisuma leen ñuy dugg ci jeunesse bi di xol lan moy bëgg-bëgg ndaw ñi dëgg lool dëgg te am réew ab ga kañ gox sax lay wax liko yor moy ay xalé mais tay damay gis ñom ñi nga xamantene ne ñoo bu ñoy xëccoo dëkk bi ci seeni morom rek lañuy dem dëgg lool dëgg té dëkk dafa am nu muy doxé pour man man daal lima gis ki nga xamantene buñ ko joxé suñu dëkk suñu gox mu doxal suñu gox lépp lu ñuy gis ci mbedd mi di ko ñee war nañu ku ñëw yéen war nañu ñee ndax yéen doon na foo xamante ne doonatul milieu bu ndaw dëgg la wala dëgg ndax tey ku ne jalaaw xam ne milieu la boo xamante ne ñëpp a ngi fiy ñëw dëkk tourisme la kon yéen war na dépasser fii mais man dama xool depuis ma ñëw fi ba tey li ma xëyoon di gis moom lay xëy di gis ba tey te il est temps nag loolu ñu changé ko ñu changé ko nag suwaat maire mooy toogaat mu xam ne ñun jeunesse bi lii lañ bëgg soit keneen fiy toogaat mu xam ne lii la jeunesse bi ndax ñun soxlawuñ ñu jox ñu ceeb soxlawuñ diwlin soxlawuñ dara mais dëkk dafa am nu mu war a doxee mais tey ñun ñii sax di liggéey luñ soxla dañuy génn dëkk bi lu waral loolu parce que ñàkk ay conditions yoo xamante ne mun nañ ci gis suñu bopp te amaana tey ku ñu fekk si si loo xamante ne yombalal nañu suñu liggéey doo fi jóg ndax ñun ñëpp bëgg nañ dara wala loolu daal mooy sama xalaat pour daal góor gi siis ñu jëlee ko fi mbooloo moo ko fiy jëlee te mbooloo boobu nag am na fi ñàkku fi bay mas mu ngi xëccu man ren la koy doga deg ndir yag na fi deg lol deg ndir yag na fi man sama xalaat bu gatt suma ma doon lu may wax nañ doon ben ñom ben doon ben say ñu xol ki nga xamantene mën na jëmele dëkk bi kanam ñom ñu top seen ginnaw ñu liggéeyal ko dëkk bi mëna avancer ndax dëkk bi bu avancer ñun ñëpp la avancer waaw kuma gëna yaakar bu changement am nak mom, mënuma la wax ki la ndax ñi di xëccoo dëkk bi ku ci nekk yàgg ngaa am sa doole toog si te xam nga lan mooy bëgg-bëgg gox bi te nekkoo ci mais élection ñëw na ku nekk yaa ngi wane sa bopp loolu mënu ma si gis doomu aadama waaw mais ndiir def na acte boo xamante ne acte noble la muy lan jël na usine teg biir yeen jeunesse bi di si liggéey jigéen ñaa ngi fay liggéey di daan seen doole kooku jàpp naa ne bu ñu amoon ñeneen ñu mel ni ñoom dëkk bi dina gën a avancé ndax tey li nga xamante ne moom la ñuy xëy suñu yaay di xëy di ko wuti ci mbedd bi bu amee ci dëkk bi dootuñu demati fenn te gis naa ni Ndiir def na acte boobu mais ñi si des nag dama gis ba élection jub see lañ commencé wane seen bopp commencé fes si bëtu nit ñi moo tax mënuma ma gise si côté boobu mais Ndiir daal li mu jot a def xaw na daal sama xel waaw. jaajëf maa ngi kontaan si yéen. waaw man maa ngi tudd Mamadou Thiandoum dëkk euh, Yéni Géej waaw. waaw waaw ñëw na waaw ñu ngi koy waajal bu baax waaw candidat yu bëri yi boo gisee euh, dafa mel ni ku nekk dafa bëgg a xëcc jëmel sa boor loolu lay ndural quoi ku nekk dafa bëgg a jël affaire bi euh, bëgg ñu ñu fal ko quoi bu ko defee moom mu mu liggéey si côté am quoi loolu laa ko jàppee mais pour euh, pour gagner maire bi fi nekk nii foog ñu am benn bloc bu bu bu seere foog ñu nekk en coalition bu bu dëgër. pour me combattre avec lui parce que moi je dafa taxaw quoi parce que waaw y quoi il est reconnu par tout par toute la population quoi il xam ko quoi tout moo bloc waaw combattre quoi man mën a ak moom fi gis nañ fi ay yu yu yenu quoi yenu gis nañ fi comme comme dire comme euh, Baye Mass waaw Baye Mass Baye candidat bu potentiel quoi selon selon selon moi candidat bu potentiel parce que gis naa ne bu gars yi wéeroo si Euh, dinañ am dara parce que mon il est engagé quoi waaw mais euh, je pense que mon mon war a fait fekk c'est Baye Mass waaw non bon, euh, sur le clan populaire parce que euh, Baye Mass moo ëpp popularité quoi C'est Baye Mass euh, comme pop moo popularité Ndiss il n'est pas reconnu par par tout par par par tout le monde parce que ñëpp xamuñu ko quoi parce que Ndiss dafa nek ben candidat bo xamné yag na fi mais ñëpp xamuñu ko quoi bo xolé nouvelle génération jeunesse jeune bu bari jeunesse yu bari xamuñu ko quoi loolu tamit euh, da ci jouer quoi te Baye Mass mo gëna a bëri ay activités euh, euh, ci dëkk bi parce que bo xolé mom la jeunesse bi mom lañu gëm quoi mom lañu gëna euh favoriser que que Ndiir quoi malgré que Ndiir amna amna amna expérience politique. mais je crois que moo gën a moo moo war a gën a ranger wu si Baye Mass pour accompagner ko may ko doole pour que mu. waaw waaw maa ngi lay fay bu baax di la ziare bu baax di la delloo njukkal ni ngay ñëwee si las fii nii quoi waaw ça me fait plaisir quoi parce que li may dégg nii si dëkk bi nii gars yi di riir di wax di wax rek man jaaxal na ma trop quoi mais man li may laajte mooy cinq candidats yi posé yëpp ñoom yéen leen tax a jóg wala ñoom seen bopp yi ñu moo leen tax a jóg. yéen moo leen tax a jóg. non yéen taxu leen jóg ba leen yéen taxee jóg ñoom dañaa doon benn bopp yéen jalaaw la waa yéen bokkutul leneen lu ñuy wax jalaaw mais bu ne jalaaw la jalaaw moo bëgg a liggéeyal jalaaw mais ñoom bu leen jalaaw ñoree ñoom ñëpp mënuñu boole ñu nekk benn si bopp bi ñu liggéeyal jalaaw mais bu dëgg na dañ bëgg a def cinq parti fii nii si parti bi fii si biir yéen jalaaw gii li ñu bëgg du sotti kii fu jóge dafay toogaat rek kii fu war a jóge dafay toogaat rek kii bëgg a fi day toogaat rek ñun ñëpp ay waay yéen lañ dañ fi bëgg a jële kenn nañ bàyyi parti yi bëri yi ñu def ko benn parti ñu jëlee fa waa ji mu jóge fi bu déggee jël nañ décision man de laas bu déggee na cinq parti yi dañu xaaj quatre yi ñu war a joué joué kenn ki man bokkuma ci kenn waaye ku ma woo wuyu la waaye ma carte maa xam fi ma kaa dugal mais bu déggee daa defar yéen lañaa doyee ay nit ña bëri ay carte yu bëri ay candidat yu bëri ne boole benn yoon ña nekk benn ña doon benn kii la ndiir la met xaw ma nakax nakax naka man xaw ma sax man ndiir la ma si xam Amet Ndiaye ngir la ma si am parce que moo say yëngu yéen koo lan wax mu ne yéen mais ñii si DG boo waxuñu yéen man yéen la maa dégg yéen yéen la ma gëm man kii gëm yéen la ma gëm waaye dama bëgg a falu dama bëgg a falu ñoom nee daje nekk benn c'est facile wax ji du sori de neex la foofu ñee daje nekk benn yaakaaruma si kenn awma si kenn confiance ñoom ñoom nag awma si kenn confiance mais bay daje nekk benn ma am si ñoom confiance en tant que toog ñu nekk benn du ma si am kenn confiance parce que li ñaa wax la man dégguma si dara day bëgg a defar yeen ne and doon benn ñoom ñëpp ki lay fi bëgg a ki ka fa jële du ñaari ñoko ko fa jële ñu tuñ ñoo ko fa jële kenn ak nit moko ko fa jële te kenn ko la ah bo leen def ko kenn ñu jële ko fi euh je m'appelle Souleymane Diouf ma ngi tuddu Souleymane Diouf dëkk yéeni geej wa c'est ça élection yi waaw yàggatul parce que euh, li si des bëreetul quoi deux mois et quelques wala à peu près deux mois moo ci des waaw c'est ça wa candidat yi ci am comme information je pense que pour l'instant quatre la xamagul wala à peu près 5. non la mais candidat yu bari je pense bel et bien que c'est possible lu meuna parce que c'est la démocratie hein. xalé bu gëna nek ndaw sax bu ko ambition mu postuler comme tout le monde parce que caution bi 15 millions la rek c'est ça man comme idée c'est aussi la démocratie hein. Non la demain, lola laa ci am comme khalat lola laa ci am aussi comme information euh li nga wax ni lolu khalatou nit ñi la rek mais khalatou nit ñi ça veut pas dire que khalat bobu nonu mom mo nek non la demee parce que bo xolé bu baax dañu né élection yi ku ci nek am nga droit postuler ça veut pas dire que ki postuler nonu bu rangé wul ci derrière un quelqu'un ça veut pas dire que bëggul yéen non la demee nit mën na bëgg yeen di démé ak programme am di démé aussi idéologie personnelle am quoi comme xan nga non la démé kon koku ça veut dire que bëggul yeen li doon gën moy ñepp bolo comme xan nga non la démé man mi di wax ni je parle personnellement waxewuma ma si euh, turu andu taxaw yeen jala waxuma si turu Baye mas mais li doon gën peut-être moy ñepp bolo Baye mas mom depuis le début mom si lool la nekk tijjil na ñëpp yoon bi tijjil na ñëpp buntu yi pour ñëpp ñëw adhéré ci mouvement wam comme xam bu baax noonu la demee kon kooku demeewul logique gu tëj comme xam bu baax est que noonu la demee mais keneen aussi ku am logique gu pour que euh, euh, euh, ñi ñi ñëw je pense que aussi ku demal sa bopp tamit sa yoonu bopp nga jël noonu la demee mais askan wi xam nañu ñu ngi tijji seen ay bët askan wi nelawuñu comme xam nga bu baax noonu la demee je pense que aussi. ils vont voter inshallah utile duñu nelaw quoi comme c'est ça je pense que aussi euh, ils vont voter utile Ils dinañu voter aussi pour sanctionner Gorgis parce que après tout def y fi 20 ans ou 28 ans zéro bilan zéro réalisation nous hein. noonu la demee y yéen ñu ko constaté noonu la ko wa constaté nous la ko constaté non la ko aussi wa constaté

mooy nduxura ba tubaab jalaaw ba ñaay ñu ngi si woo ñëpp incha allahu rabbi te ñi ñu aussi il faut que ñu am fulla ak fayda bu ñu gisee ne li fi ne doxul ñu jël ñu ñu ñu pare jour boobu noonu huit ba ba ba ba vingt trois wala ba minuit ñu jël seen ay carte dem voter pour ki nga xam ni ñoom si kooku noonu la ñu gën a sentir seen bopp loolu mooy sama sama sama sama dernier mot maa ngi leen di jaajëfal bu baax pour interview yi ngeen di def pour wax sa xalaat bi ngeen di def parce que askan wi aussi Euh, ñu mën a exprimer wu li nekk si ñoom quoi comme xam nga c'est ça te je pense que loolu c'est important je vous encourage pour ça te bëgg naa aussi ni ngeen ma joxee micro ngeen joxee ko ñëpp ñëpp ñëpp noonu micro bu ko defee ñu mën a wax li ñu sentir ñu mën a wax li ñu xalat quoi loolu c'est important maa ngi leen di jaajëfal jaajëf. waaw mbokk euh, loolu moo nekkoon li nga xamante ne nii TV indi na leen ko. di leen euh, ñaax euh, ngeen gën di abonné wu euh, bu leen fàtte aussi bës cloche de notification yi pour bañ rate dara si suñu vidéo di leen jox di daje si yeneen i numéro si suñu micro trottoir